di ko taatan si ñu bokk ko ànd ak suñu gaay yi ku mel ne sëñ Maguette ak sëñ Modou Diop euh, ñi nga xam ne ñoo bokk euh, liggéey bi di commission circulation ah, bis bi nag wax dëgg yàlla loo xam ne ñu ngi ko doon séentu ay ay weeri weer ba yàlla dogal ñu naan ay fan ba yàlla dogal ñu naan tey ji bis bi ba yàlla dogal ñu wax ay ay ay a ci des ñenn ñi di ñibbi ñeneen ñi di ñëw ah mbirum sëñ bi daal moom gis nga ku nekk yaa ko gis sa bopp bi ñu doog a xëy si nag yëf yi moom euh, xawoon nañ a amuk tiit sax ba naan maanaam yëf yi moom ndax nit ñi dinañ bari waaye mujj na mujj na mbooloo moom fokk waaye takk rek passé na ko waaw kon nag suñu Ablaye ñi santaat bu baax di santaat Seexul Xadim bu baax di santaat ñi nga xamante ne si ñooy soldaar Sëñ Bàmba yi di Baye Fall yi ñi nga xamante ne si ñoo ànd bokk liggéey bi di ko liggéey fii ci Touba Brescia ci Touba Ponte Vigo ñooñu di ci njiital suñu Abibu suñu Abibu Ndiaye ak suñu Massar Ndiaye ak suñu Càmm Mbeng ak suñu jëwriñ sañ sañ màggat mi ak suñu jëwriñ sañ Modou Loum ak suñu Madi Kébété gars yi ñu àndal liggéey bi ñëpp ak suñu Modou Diop mi sama wet moom daa si misile bi léegi waaye ci ci liggéey bi la bokk waaw ñu moom ñu ngi sant bu baax baax daal di xam ne moom euh, mbirum sëñ moom euh, amul tànki gannaaw tànki kanam rek la am te wax dëgg yàlla nag heure bu ne it ñu ngi ciy gis suñu bopp nag rawatina ci bis rawatina bis bi bis moom bisu mbégte la bisu mbégte la ku fi dikki ku ne rek sa xol sedd na ndax xéewal yi dara manqué wu lépp mat na lépp mën na gis nga kees gi nga gis ni ay a la defoon euh, ba ku fi mbokk taal ku fi jaar day daal jël yóbbaale rek mooy mbirum sëñ bi dam tuwaar fa kàlla première bi nit ñu danañ danañ xaw a am tuuti lu ñu kii waaye bu demee ba ci biir rek dañu xam ne mbirum sëñ bi moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am jërëjëf sëñ Ablaye rahmatullah ñoo ngi nuyu mbokk taalibe yëpp di di siyaar ñëpp ci di di leen feddal suñu kóllëre ci bés sëriñ Tuubaa bu tedd bi nga xamante ni yemul ak dara te demam géej googu moom ba mu demoon ba ko tubaab bi wooye ba mu dem ba jëflante ak tubaab bi ba wàññeeku ci la saa borom may lépp lu mu koy may moo tax fépp fu waay toll ci àdduna rek war naa mën a sant Serigne Touba parce que bis yi dafa nekk bis bu rëy ci moom maanaam euh, jamono ji toll na foo xamante ni yàqu-yàqu yu bari na nit ñëpp a ngi topp di daw ngir nguur ak ngir alalu àdduna ak i ba seen ba naf su bakkan li fi am ba des daal mooy bu ñu dellu woon ci yoon bi Serigne Touba teg ñu ak maam Cheikh Ibrahima Fall mi nu yaakaar xam naa ne danañ ci gësee njëriñ ndax euh, kilifa àdduna yi ŋànk nañu àdduna ŋànk goo xamante ni lépp jaral na leen lu ne maanaam ba ñu jaral leen sànq seen moroom ko jullit sànq doomu aadama ngir mën a am seen noflaayu bakkan ak noflaayu àdduna loolu nag dañ ko waroon wan ginnaaw jàpp ci xasida Serigne yi yoon bi mu ñu tegoon yoon bi mu ñu teg buñ ci tegoo bu sobee yàlla dina gis njëriñ waaw te ñun danoo nekk danoo jóge fu sori ñëw fii ci réew mi di fi daan sunu doole. Sénégal metti na métti goo xamante ni sunu rakk yi sunu mbokk yi ñu ngi jël ci gaal di def lu lu kenn xamul yaakaar ni seen tekkite moo fii la nekk li ñu leen di digal daal mooy ñu gëm sunu bopp topp jaamu yàlla topp ci xasida Sëriñ Tuubaa yi jaamu yàlla ngir yàlla rek tax. jullit jàpp moroomu jullitam nit jàpp moroomu nitam te yàlla rek tax loolu man gëm naa daal bu ñu ko doon def fi mu nekk nii lépp lu ñu bëgg ci kaw suuf danañ ko am te bu demee ëllëg bu yemal xiyaam du ñu rus suñu kanam suñu borom te du ñu rus ci kanamu sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah aousubillah bisimillah ina wali yàlla waaw sant sëriñ bi rek màggal gi wax dëgg fa yàlla kawe lool waaw li ci sëriñ bi woote daanaka li ci ëpp mbokki taalibe fii matal nañ ko depuis àjjuma ba léegi ñu ngi ci xidma yi ci wàccaay gi bi su ñëwee tamit gaay yi li ci war yëpp war nañ ko ci tàmbale nañ ko ci alxuraan bi dëmb rek ba bañ paree ci lalum tabi bi gaay yi sikar nañ fi sànfaal bu yaatu dalalee ko bés bi bu ñu xëyee gaay yi jàng nañ fi alxuraan jàng fi xasida day waxtaanee fi sëriñ bi sant nañ ko santale nañ ko yàlla ci li mu woote màggalam nga nañ ko santale nañ ko santale ko borom bi subhaanahu wa taala waaw góor yàlla yi tamit dem nañ suñu kéem kattan dem sëñ bi mënuñu matale lépp ni ko mbokk taalibe yëpp di waxee rek ëpp nañu sëriñ matuñu ko ay taalibe du suñ du suñu njàmbaar du suñu ndimbal sëñ Mountakha nee na kenn jàmbaar amul yaafus amul kon ñun dañoo war a gën a sant rek ngir ndimbal gi ñu dimbali waaw ndax sëriñ bi rek moo fi nekk barke sëriñ tubaa niñ koy dundee màggaluk Touba noonu lañ koy dundee la fii ci pasos ak ci yëg-yëg waaw mbokk taalibe yi tamit taxawaay bi rafet na waa ñu ngi gën a soñaat suñu suñu bopp di soñaat mbokk taalibe yëpp rawatina tout tànk yi fii ngir Sèye daan wax naa li nga am te xamoo ko ñàkk wut ko da koy gën li ñu am la sëñ Fall doon wax ñu rek ñoo ko am ni nag boo amee lu ko kenn amul da nga koy jàppe nu ko kenn jàppewul te sëriñ bi mooy léppi àdduna saar seeg baatin bi alal ji ñuy wut ci sëriñ bi la gën a gaawee barke sëriñ Touba li jëwriñ Yuusu wax barki démb ci isbu yi nee na place xol bi sëriñ bi rek moo fa xaj ji nañ ko tee ci loxo yi mi ngi ñu mën a liggéeyale sëriñ bi ñuy daw fii nii dañuy ñaan yàlla fekk rek mi kenn xamul waaw mais bu ñu jiitale suñ lépp sëriñ bi rek waaw lépp mën na tawfeexe waaw ndax sëñ Muntaxa nee na am sëriñ Tuubaa lu tawfeex la kon yàlla nañ am sëriñ bi rek waaw di saaku gën ndimbalu waar rek sëñ bi gën noo dimbali waaw ñun ay jaam jaamaar lañ rek waaw lii moom du suñu jàmbaar quoi sëriñ bi la rek yàlla nañu gën a dollee dimbali gën ñoo def ay dëgg-dëgg taalibe waaw ñu doon ay dëgg-dëgg Baay Faal ñu nangul doon ay jaam yu ñu nangul ndax sëriñ Tuubaa moom mi nga xam léppi àdduna la nee na Xaadimu Rasuul la jaamu bi yàlla la kon ñun tamit yàlla nañ doon ay jaam yu nangu ne ay jaam lañ waaw doonuñu dara yàlla nañ doon ay jaam yu nangu rek di sant ñëpp di sant mbokk taalibe yëpp di tuub nag ñun lot nañ ci wax ñun wax waruñu ndax ñun ay sagaru jaam jaamaan lañ waaw jërëjëfe Serigne Touba yàlla bil mustafa sindidi yàlla wa bi xalilika ibrahima yàlla yàlla bil mustafa sindidi yàlla wa bi xalilika ibrahima yàlla وبكلمك موسى سال خدر وبزعيب وإسماعيل يلاه وبسليمان نوين يونس اليزهي وزكريا يحيى هدى الله هارون يوسف وإلياس وآدمدا هدى وزلك إبليس لتي الله ويوسف وبيس summa sawatihim jibrila summa bi mikaahila yallaahu wa sahibi nafqi israfila xaabidi ar wayil xalaayiqi asraila yallaahu wa bisaabati summa lawliyaayi maan walamilina min al aqbaari yallaahu wa bisiddiqin wa bilfaaruqi summa bisi نورين سما أبي سبتين يا الله مالك انزل مزايا زافي أبي أنفة اللهم المحمود يا الله بلو الخلم المغفات ثم بعرسك الهزيم وبالكرسي يا الله وبالقرآن وبالتوريت ثم بما داود جابي وروح يا الله bali salaati wa taslimi alayhi loo wala li wa sahbi wal azwaaji allahu wasbilana alayna rabbi afiyatan wa ablana alxasd fi daarayni allahu وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالين من الخيرات يا الله سبنا نجر وكفنا زللا واطرد لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما نرسد وابلنا كل ما نختار يا الله وارد لنا كل ذي زاب وزيار ويزرا كل ذي تنصير يا الله طوي لنا عمرنا زين لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله ودمرا كل أعداء تدير بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن لنا عازما من كل مالكة ونجنا من بلايا دار يا الله وعفتنات مقوزة معن زلزلة سدة والفقر يا الله إهانة خلة مصيلة خلب وفاقة أتنس والجوع هي الله وفتنة والوباء والأرخ ما قرف والبرخ ما سرق والكد الله هر وبرد وانا بالكربة النهم دلالة عرج والخم الله وهمة وقطايا دالة زلل والمسخ والخسف ثم الخسف يلاو وغلة مع جنون نلة مرد ثم الجسامين والنقصان يلاو ومن خبيئة دنيا ثم آخرة ومن فداء ما يلاو يلاو يا من على كل شيء قادر وعلى الذي مستوى بالخير يلاو إني سألتك في دارين يا ثقتي إسنا نسينا فكن ملجا يا الله فلا تكلني إلى نفسي فعلك كن مجيبني حيث ما أدعوك يا الله وجل لساني وقلبي ذاكري كمان عند الممات مع الإيمان يا الله سبد يقيني في قلبي بلا وجل أتى أهيب لقاك كالحق يا الله فلجل الموت راعات ومبرعة من كل سر وكرب داخ يا الله وفضلي الجسم زرع فارقني بالقبر لا تبلينه دهر يا الله وكنا سيريا نسينا ما دفنا جسمي فسرت وحيدا سما يا الله لا تنم من ما قد يرويني بل في الكل ما أخزاه يا الله